bismillahi rahmaani rahim ah, di wax rek ne Mariam moom ah, moom moo fi jóge ah, muy jabaru Aliou Mbaye Nder mu nekkoon nit ku baax nit ku amoon diine parce que loolu aussi dafa bokk ci nitu jullit ku amoon diine la ku jàngoon arxuraan la ku buggoon jëkkëram la moo tax ba mu nelawee tamit jëkkëram taxaw na gërëm ko ci kanamu ñëpp am na ngërëmu jëkkëram am na mu rakkam am na mu magam lu ñuy ñaan rek yàlla na ko yàlla xare ajjana woyofal suuf ci kawam ak ñu fa fekk yëpp ci kattan ak sunnaas Muhammad jërëjëf nit nit nit ku baax la woon nit ku yaatu la woon parce que boo xamee ku euh, am jëkkëru chanteur muy Alioune Mbaye Nder rek nit ku yaatu rek nga mën a doon te durant toute sa vie moom rek la mës a sëyal moom rek la ay doom wax dëgg yàlla nit ku baax ku yaatu ku amoon diine loolu daal la xam ci moom. en fait ses qualités moo doon euh, c'était c'était c'était une dame qui respectait son mari et qui aimait son mari et ça c'est important mooy l'amour que tu portes envers la personne et quand tu aimes la personne ça veut dire que tu lui donnes tout elle était entière wax dëgg yàlla ça c'était ça faisait partie de ses qualités. mais bien sûr bon euh, mooy li ma wax tout à l'heure rek quand vous avez un mari artiste et que vous avez cheminé presque une trentaine d'années c'est parce que vraiment il y avait une complicité entre les deux voilà. njaboot gi nga la fi bàyyi. un bon exemple boo amee yaay bu mel noonu. mënoo lu dul topp ci gannaawam mënoo lu dul seet li mu doon def la vraiment fu mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk rek yàlla sàmm leen aar aussi voilà merci beaucoup merci. bon moi je je, je l'ai vu il y les deux jours j'allais la voir bon nit nag day dee man c'est ça que je dis toujours bon feebaroon na yàlla jël na ko li wax rek yàlla na ko yàlla xare ak jana way fa suuf ci kaw merci beaucoup. sëñ bi maa ngi lay ziar ma la jaalee rek li waaw ñu ngi lay fay mm-hmm. ah, di la ni sigil sa wàll Aline nit ku baax la yàlla dogal na ñun suñu goro la ndax sama soxna yaayam ak Aline ñoo bokk ndey ak baay sama soxna daanaka àllin moo ko yar yàlla dogal àlli ñàkk nit koo xam ne ku seer ci ñun Marème nit ku baax ñàkk nañ ko ah, Marème dañ daan dem këram lu bari heure bu ma musaa dugg Dakar man damay dem këram li ma gën a neex ci Marème heure boo li ma leen wax sànq rek heure boo duggee këram da koy fekk bu yor kaamiram te jigéen lu mën a xew bu amee diine rek am na sens ca vraiment Marème nit ku am diine la woon nit ku jàppale woon borom këram la muy Aline Mbaye Nder Aline day gor soo xamante ni képp ku nekk ak moom boo ko comprendrewul xamoo du ngeen mën a def mais Marème moom xamoon na nan na war a nekk ak Aline Mbaye kon vraiment Marème daal dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yërmande yàlla teeru yàlla na réccu li mu doon def ci àdduna yàlla na àllaaxiraam dàq al aldinaam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Marème qualité moom bari na parce que jigéen li ma la wax bu diine bu amee diine rek déjà loolu qualité la beneen bi ci des yaru na teey na demul dikkul jigéen bu fekkente ni tànkam gàtt na bu jëkkëram di dem bàyyi ko ca kër ga bu ñëwee fekk ko ca kër ga wax dëgg yàlla jigéen ju mel noonu kenn gënu ko te Marème yooyu mi ngi woon ci moom kon Marème daal Alioune Mbaye yàlla na ko yàlla may xolu muñ di ñaan yàlla njaboot gi mu bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo bu baax a baax a baax ca barke bi woon ci seen yaay yàlla na yàlla sotti barke boobu ci seen kaw ba lépp loo xamante nii daal lu leen seen waajur doon taxaw daal yal na yàlla jàppale leen wuutu leen ci seen yaay ndax yàlla képp ku mu wuutu rek doy na sëkk. alors diggante naka waaw ñun suñu diggante Marème sama goro la woon ku ne xamante ni Marème activité bu weesu woon liggéeyam ñëw toog këram yàlla dogal na tamit lu mu sa xew Tiwaawan man Tiwaawan laa jógee fa laa dëkk ndax démb bi ma sama soxna woowee rek wax ma ko ci ay deux heures moins ma daal di bàyyi li ma doon def lépp dem sama kër waaj ànd ak sama soxna ñëw ma nii dama tëj sama place te am na nu mu doon demee bu fekkonte ni li jiwuñu ko démb ah moom mën nañ koo dégg rek mais nag duñu yàqal suñu ak yooyu waaye nag dama daal di tëj sama palaas wàcce samay emprunté ni leen atelier bi bu mu tijji ndax sama goro dafa wàññeeku muy jabaru Alioune Mbaye Nder doonoon mareem di jigéen ju baax maa ngi cay dem tëjal leen ma sama atelier ba ma ñëw doog koo ubbiwaat ndax mareem ni mu toll ci man loolu ma moo tax ma doxale noonu waaw nit ku baax la daal di ñaanal Alioune Mbaye Nder yàlla na ko yàlla may xolu muñ ah di jaal mareem ñu ngi koy jaal ay doomam di ko jaal sama soxna di ko jaal yaayam bay sekk di ko jaal mbokk mi yëpp di ko jaal yéen ñi nga xamante ni ay niti média ngeen di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku leen sàmm leen lépp loo xamante ni dem ngeen jël ko daal yàlla na neex doomu aadama yi àdduna bépp di leen suivre ngeen bokk ci rajo yi nga xamante ni rajo yi gën a mag ci àdduna bi yàlla na ci yàlla boole ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na alors sëñ bi maa ngi lay ginnaaw bi ma la jaalee rek lu ñu bokk. waaw man tamit maa lay fay bu baax Moustapha Mbaye laa tudd Aline Aline sama nijaay la moom ak sama yaay ak sama yaay ñu bokk ndey ak bàyyi sama yaay di caat bu jigéen moom muy caat bu góor. xam nga bu baax ki nga xamante ni moom moo di Soxna Marème. waaw Soxna Marème moom xam naa ko nii rek ndax man bariwuma tànk këram waaye mbaaxam sama ñoom yaay moo tax ma xam ma xam sooxu mbaaxam ci moom. mu baax lool fonk sam fonk na ay magu àll mbay ndeer moo waral tey baaxam siiw noonu mu nekk na sono soo xam ne vraiment nit ku baax la woon man aw ma jot du ma seeti kenn waaye saa saa su ne sama yaay bu ñëwee ci moom ci ndeer day naan vraiment Marème daal gàcce ngalaama waaw wóor ne la kooku jigéen ji jigéen ji baax la ndax booy def lu baax fan koy waxee doo ko fekkee waaye nag yal na ko yàlla yërëm bu baax a baax a baax a baax xare ko àjjana na waaw bu loolu weesoo damay damay gërëm magu mareem yi ndax ñoom ñoo jàppale Aliou Mbaye Nder ñoo fonk Aliou Mbaye Nder ñoo bëgg Aliou Mbaye Nder Nder lu mu mën rek ñoom la kon lii naqar bi naqaru ñépp la senegal gépp la waa déggoon naa ko waaw waaw waaw déggoon naa taw tam na waaw yàgg naa tëdd ci lal hôpital xam naa am na yenn fi feebar yoo xam ne kenn du ko siiwal waaye Nder moom vraiment def na lu ko war daal waaw jëkkëram moom sama nijaay taxaw na nu fu góor di taxawee rek ci jabaram rek sama nijaay taxaw na ko noonu yàllaa ñëw na yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk waaye Nder daawul nelaw guddi daawul nelaw bëccëg dem na xa bu joué bu mu joué xa bu demee xa dafay dafay absenté ndax bëgg moo foor moo waral lool moo waral lool na waaw ñu bëri wax nañu euh, ñoom ñaar seen diggante dafa am complicité bu mag bu ci nekk. waaw waaw jabar ak jëkkër dafa war am complice ndax ñaar yàlla bu leen boole bu xasee ba boole rek ba njaboot am foofu rek foofu nëbbatoog làqatoog dara dara war fa am moo waral ñoom ñaar ñu wax loolu waaye Marème de vraiment mooy mooy mooy waañu àll mbay ndeer la vraiment waaw. waaw njaboot gi moom taawam. sama maam sama maam lañ ko tuddee ñun ñëpp xale yi ñun ñëpp maam lañ lañ koy wooyee waaye yal na ci yàlla teg loxo ci njabootam Aliou Mbaye Nder gi yàlla may leen may leen fënn gudd may leen wër ak sutura bu bëree bëri ba ñoom ñu dimbali seen baay Aliou Mbaye Nder waaw vraiment Nder moom daal gàcce ngalaama daal waaw sunu nijaay la waaye ñun ñun de ay jarbaatam gërëm nañ ko sant nañ ko ndax sama ñoom yaay. jooyuñu dara moom dafa dafa fonk ay ay magam papaam dafa teel a gaañu yaayam dafa gaañu waaye ay magam yii ñii sama ñoom yaay ñii ñooy ndeyam ñooy baayam waaye nag tamit du ko rëccu na ndax boo fonkee say mag daa mel ni mooy mooy ndey rek merci beaucoup jërëjëf ko yéen tamit kontaan naa ci yéen yéen tamit yéen a ngi liggéey liggéey bu set liggéey boo xam ne senegal àdduna fépp waaw yéen yéen gàcce ngalaama tele bi yan na gën a yokk ca kaw ci bàkk sëñ Babacar Sy na waaw man daal vraiment ah ñun de kontaan nañ ci yéen meer na mu mënul wax tey na waaye nag ay jarbaatam ak i mbokkam ak i dëkkandoom ñooy wax waaw ñu ngi koy jàllale ñépp na ku ñëw ak ak ku ñëwul ñëpp xol yi yëpp tooy na fi ne vraiment kontaan naa jërëjëf ci bàkk sëñ Babacar Sy yal na jàmm yàgg. Ah, ngi xanaa mu nekk nag jigéen ju baax jigéen ju muñal borom këram ndeer ak sama yaay bokk ndey baay waaye ñun waat nañ ko ci yàlla ni heure bu borom këram masaana dem tournée tukki sax mois yooyu mu fay am yëpp da koy woor di wàcce kaamil jigéen ju sell la dañ koy ñaanal fi mu jóge fa mu jëm gënal ko fi mu jóge tey ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci suñu borom teg loxo ci barki Seydina Mohamed nii mu muñale borom këram sàng ko sutura ba xëy borom këram denc ko yàlla na feeñ ci njaboot ci barke njool màkk moo njëkka a takkal sama maam jaare oor takkal koy lam sama umpaañ yëpp a baax macha allah mais daal Marème am na ngërëmu borom këram yàlla na ko yàlla teeru ak Seydina Mouhamed ci barke njool màkk barke Serigne Babacar xanaa mu baax rek macha allah. yére bu rafet mu jël jox ay jarbaatu jëkkëram comme ni ko suñu yeneen umpaañ yi di defee macha allah yàqalul dara ci suñu kër nijaay wax dëgg yàlla lu xew nag Tiwaawan mu teew teew teewaay bu rafet macha allah dañ leen di ñaanal rek ñoom ñi fi des yàlla na leen yàlla bàyyee sunu sunu nijaay te moom mi demit yàlla na ko yàlla tàbbal àjjana ya gën a kawe njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci sunu borom teg barki barki Seydina Mouhamed jërë ngeen jëf voilà internet yi rek comme ñu leen ko waxee ñu toog ak jarbaatu Alioune Mbaye Nder yaay booy maa ngi lay ziar ginnaaw bi ma la jaale lu yàlla na yàlla nangu ziar te ñu bokk ko ñun ñëpp def jàmm defal ko ñëpp li ma leen ci mën a wax daal mooy ñu ngi seeg suñu njaay ku baax la ndaxte moom bu ñu deful woon dara dara sax te seeg suñu nijaay rek loolu honneur la rawatina ci nag mu baax ku la gisee dina kaf dina waxtaan ak yow bu amee alalam may la jàmm la daal am na jàmm daal amul benn problème amul aw ay. tey la sekk waaw moom mi ngi man nag maa dul ñëw man maa dul ñëw ak njaboot naa damay toog demuma fenn waaye. yëg naa daal ci sama yaram ne moom bu baax mu ngi sëy ak ndeer di ko ñu koy jàppale waaw ay doomam nag bëgg nañ ñuy daw ci sama kaw di wax ba ci suba bi ma ñëwee yàlla baax na daal yàlla daal baax na. Mariam lan la ñaareel. moom ñaareel mooy aawa moom nekk fi waaye moom ñaareel la woon. ngay wax sa góor sa càmm. sama nijaay kooku bu may wax ci moom fii ba suba duma noppi foo xalaat lu baax nga di ko defal sa bopp defal nañu amul lu mu ñu defalul ci àdduna defal nañu bay defar suñuy kër ñun barke salaatu fatiha du ma fen mag laa di yëkkate ay xaalisam di nu may di ñu lu ne daal defal nañu ko baax loolu bëgguñu nag bu la gisee tey ji da lay bëgg a forleek lu mu yor ci loxoom ñun ñoo ko ca bàyyi ku mu ci yëg sa soxla da koy faj man damay tëdd sama kër ni kar sama téléphone mu wuyu ma man ko ah yónnee ma dara damay jënd ordonnance yónnee ma xaalis ci saasi su ma amee problème wax ko da koy faj billaay wallaay al azim man na sunu kër yi sax dafay dugg di xool kar karole def lu ne kon koo ko lu ne la defal famille am nag gis ma lu mu ci defalu nit man dem na ba jëndal ma ay meuble karale sama kër kon xam nga ni ndeer mii dañ koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla yokk wërsëgam nag ci barke Seydina Muhammad waaw waaw ku baax la waaw ku baax la nag baax na lool bëgg na famille am toppatoo nañu kenn mënta waat ni ndeer mi defalu ko dara ñun ñépp nag wallaay wallaay la asim xanaa ñaanal ko rek yàlla xare ko àjjana ca àjjanay firdaws ya yàlla na ko fa yàlla sa borom bi yóbbu ki nga séqalul dara jotewoo moom dara mu dee nga di ko ñaanal estamaan nag far ki nga bokkal ndax mareem ñun ñooy mbokkam ndax dara tam dafa jaxasoo gis nañu dara te ni ñun ñi ñoo di mbokkam kon dañu koy ñaanal man ci suba rekk fi daawul naa ko bi may jullee fajar fajar ba pare fi daawul naa ko barke salaatu fatiha billaay walaay la azim man taalibe Cheikh nan ñaan nan ñaan rek yàlla baax na yàlla mën na ko caa jotaleel te loolu lañu ñu bëgg te loolu lañ koy ñaanal waaw rek laa am lu ma ciy wax merci beaucoup merci. sant yàlla bu baax. nan daanaka moom sama nijaay la. sama lépp la ñoo fa woon doo tuyaawoon ñoo defandoo lépp wax dëgg yàlla ñu ko baax a baax ñu ma ko déggee rek dem ci journal bi laa ko daal di woo ñu ko waaw ah, waa Ndeer mu mun ma ah li am de dogal suñu boroom la ma dem fa waaw mais kii génn àdduna ni moom da koy ñaanal yàlla fu mu jógee foo mu jëm yàlla na ko gënal ci barke Seydina Mohamed te doo xam ne jigéen ju baax la bu yaru bu tënit Alioune Ndeer kenn xamul ko dara ginnaaw yonent bi ko xam lu ndeer lu mu ñàkk ak lu mu amul góor na góor la sëy na ba sëy jeex dëgg yàlla jàmm rek ñu ko xamal ñu bu jógee Tiwaawan may nañu karam may nañu lépp waxtu yàlla te ah, ku mu xam ne fa àll mbay ndeer nga rek téye na la fukki loxo baax wax yàlla yaatu su ma toogee sa daal ma xaaral toogal xaaral léegi sax waaye génn day sax nangam nangam ndeer nag wax dëgg yàlla di ku baax nag ku baax lekkul ba lekk benn bàyyi mbokkam waaw bëgg yaayam ku mu am rek fonk na la téye na la man Nder moom su may wax moom ci moom xam naan fii fi laay fanaan dina defar la ma ko moom lay wax sama xarit bi mu lay may Nder sama waay la même bu génnee télé sax sa waaye nga ne dina defar na ma ko maa moom dañuy wax woo xam ne sax kenn du ko yëg ñaar ñi mu koy mere wala maat yaa ngi Tivaouane mu ko wax nga def kañ nga dem Tivaouane ko xam naa dégg vendredi baax nag góor piir soppeeku xam nga yàlla mën na la amee yenn teraanga yi nga def ne soppeeku mais ndeer fu ma seen day defante ma teraanga taal otoom ñëw seet si ma dafa ma lépp di waxtaanu Tivaouane lu mu waxtaanu ko loo xam kenn du ko wax wax ku baax na di góor piir taalibi sëñ Babacar Si baax loolu nag mais nag Youssou Ndour nag moom xam naa lu mu ko woon mooy li ma ko wax rek dem dem nee naa ko li mu def coomo moomu dégg rek taal otom tàng-tàng bi ñëw wakaam wax dëgg yàlla ñoom góor nañu ñun ñëpp ak ñëpp artiste ñoom bay noonu la def baax loolu nag wax yàlla da ngay mën seen su ñëwee su ci ci ki nga xam ne moom moo di Marème Barada ginnaaw feebar bi nga xamante ni moom moo ko tëraloon ndax mën nañoo xam tey lan moo ko yóbbu yow a teew na mën nañoo xam ban feebar moo ko tëraloon man wax dëgg yàlla dama laajoon rek mun ma dafa tawat daal waaw mun ma dafa tawat ba taw loolu rek xanaa lu baax rek. lu baax rek wax dëgg yàlla. baax la laa xam ci moom tax nit ni moom li nga xam rek ngay seddee te man wa yiwu laa ko xamal ak jullite lislaame dëgg yàlla. waaw ndax jàpp euh, xam ne ak soxnaam bi nga xam dina tiis lool nag dina tiis lool ndax borom këram démb bu ñëwee ci margo bi ba dugg dëgg yàlla jooy la ginnaale kon ma dina ko manqué nag. Mm-hmm. ma sëy moom lan naan dina dem ba ca lal ba loolu waxi dëgg waaye dina ko manqué nag dina ko manqué na ko nag ma xam naa ne te niir na ko benn jafe-jafe kenn mosoo na mu wax lam la mu def àll mu am rek nëbbuwu moom maa moom dëgg yàlla na waaw waaw Marème yàlla ko yàlla xaare jana yàlla na suuf sedd ci xol sedd ci koom barke Seydina Mohamed waaw ndax àddal na bis bu baax nag altine yenn bis bu baax altine yàlla na ko yàlla defal cat ci barke Rasulullah fu mu jógee fu mu jëm yàlla ko fa gënal waaw yàlla gëm di lu mu rëccu àdduna yàlla rek am moom yërmande yàlla ko yàlla xarajana barke Seydina Mohamed barke la jàpp jërëjëf